lu yàq lu yàq dafa farata ci jullit bu nekk mu xamal ko boppam kenn mënu ko boo defal ku dul boppam ndax ndax obligation personnelle la loolu waral day àndaale daara joo xam ne nii gone yi dañu mën ñëw di jàng waaye mag yi tamit dañu mën a ñëw di laaj ak ñu leen tontu ak li dafa am ay tuuti yoo xam ne nii yow li mu war a li war a nga xam ne waruñ ko a xam seen diine danañu fexe ba xam ko bu ko defee mën ko jëfee ndaxte ci xam ak jullit bu nga jaamu yàlla bëgg ca am tuyaaba la muy ko xam waaye bu ko ci xam teg ko ci wéyal su boobaa yi boo xam ne ndaw ñi ak mag ñi góor ñi jigéen ñi ñëpp dañu mën a def jàngale fi diine di ko xamal ndaxte xam-xam kenn mënu koo am te jàngoo ko yonent bi sallallahu alayhi dafa wax ne innamal ilmu xam-xam bi taallumi ci jàng lañ koy amee xam-xam pour nga am ko foofu da ngay jàng léegi nag booy jàngoon bi ca góorgóorlu bi ca góorgóorlu bi ca góorgóorlu mën ngaa dem ba yàlla ubbi la ba xamal la loo xam ne jàngoo ko woon loolu mooy wattaqullaha wa yuallimukumullah loolu mooy in tattaqullaha yaj'al lakum furqana loolu nag waaye ci njëlbeen bi moom faaw ngay jàng nag di jàng ba yàgg ubbi la te nag man mu nekk am ndaw la ne des ko war a jàngal ba mu xam ndaxte dafa am foo xam ne nii nit ku xamul suubaa gàcce da koy daal loolu moo tax waytu arab dafa wax ne taallam wa laysa almaru yuladu aaliman wa laysa aqu ilmu kaman huwa jaahil na ngay dem sàkku ji xam-xam ndax nit nit jittuwaale xam-xam te ki xamul bokkut ak ki xam wa inna kabira alqawmi laa ilma indahu sagirun idaa xtafat ladayhi almahaafil nit lu mu kawe kawe lu mu màgg màgg ci askanam lu mu màgg ci ci amal lu mu màgg màgg ci daraja xam-xam su boobaa dafay tuuti bu mbooloo ma daje looloo tax xam lépp loo xam ne mënut a ñàkk la loolu moo tax borom xam dañuy wax naan al madaarisu qabla al masaajid jàngukaay yi avant jàkk yi ndax imaam bi buy taxaw bi julli ak a tari la muy tari da koo ba xam ko doo ko mën a tari kon faaw kon léegi jàkk yi ak jumaa yi àndaale xam naa ko ñëwale foofu ci sëriñ sang bu tedd ba sallallahu alayhi wa sallam mu yàlla mu julli alquran mu julli sëriñ ci moom inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima yàlla na julli ci moom te sëriñ ci moom julli ci ay julli ci ay saxaabaam ci ñu julli ci islam ak ta'atu wa tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu ilayhi wa min ba'du da'wana alhamdulillahi rabbil alamin